leen abonné leen abonné leen gaaw a eggaat un million nu mu gën a ah. yi gis ngeen Queen Biz nee na Wally Seck lay gaar Wally caga Pastef bi caga boo xamante ni encaissé na 400 042 468 koy loolu doyu ko mu ne da bàyyi na musique bi léegi day politik ma wax muy gaar Wally Wally balaa ko Seck di bind bindam yu teegal ndeyam yi yow kii Queen Biz artiste boo xam ne mosoo def concert mosoo génn mosoo wayal kenn mosoo signé benn contrat ne dañ laa engagé yow tee ngaa dem cegoti te jaayi sa lëf li te bàyyi waale waale raw na la képp kuy way Sénégal waale sa bàyyi waale du sa morom nawloowu la du xool sa message du ko tontu caga bi xanaa xoolal sa commentaire yi war ngaa rus sax commentaire yi ñu la ciy bindal lu ne mosoo def concert ñii di la xas ci gàcce nga dëkk. waale xaw ma ku la ruux ba nga génn di bind lool di gaar waale ndax li nga wax ku ko xool xam ne waale ko moom waale du sa morom nawlawul benn caga ak benn doomu xaraam buy war koy politiciens yi ak koy joueurs yi demal nga jënd ordre ordre de développement bi raxas sa bi moo gën